wa day daal dinay dem këng turbine yéeni kaay ne ma la nit ñi doon xaar Ousmane Sonko daal dina koy dëggal moom Ousmane Sonko ne dañ ma bëggoon faat aha turbine yéeni kaay ne Ousmane Sonko rax ci dolli ni gees takk der yi ne leen yéen ci boppam yéen a ma bëggoon faat turbine naan maan moom njiital Pastef keroog ba nga xam ne dañ ko doon jagat-jagateer bëgg yóbbu tribunal ngir atteem gaag Mame Mbaye Niang te nga xam ne am na loo xam ne sutti woon nañ ko ca mbubbam mu weex ma Ousmane Sonko ne dem naa defi ay analyse bitim réew analyse dikk na analyse wane na nag dañ doon bëgg faat source aane Ousmane Sonko nee na analyse yaa ngi nii dëggal na ni dëgg-dëgg man Ousmane Sonko dañ ma bëggoon faat yéene kaay bi naan man te usu nee na kenn defu ko kudul force de défense et de sécurité yi maanaam takk der yi Ousmane Sonko naan xam nga boo méjee naar gànnaar lay jublul xam jublul fayit gémmiñam daal di salliiru ndax foofee la yaakaar ab wàllu waaye ñun daañu sor xolle ba àdduna wër nga këpp yëg ñu xam ne nag fii ci réew mi dañ ñu doon bëgg faat te ba nii sax lan jëfandikoo ngir bëgg ñoo faat xamuñu nag lan la def ci sunu wér yaram te naan du yàgg dara danaa ca doog taskatu xibaar yi le quotidien quotidien naan njiital pastef day ma ngay lambaatu justice di tuumaal takk der yi njiital pastef xam na ni dina amal ab plainte internationale yéene kaay bi ne xam ngeen El Malick Ndiaye daanaka lu ni mel la waxoon ñu toppee ko diffamation laaj ba mooy ndax yoon dina toppee lii Ousmane Sonko turbine yéene kaay ne déet xanaa kay ci kaw Ousmane Sonko ñàkk yori preuve ndax fi mu ne nag askan wi ñu ngi ubbi seeni nopp di déglu waaye tam ubbi seeni gët di xaar Ousmane Sonko daal di wane résultat yi nga xam ni am na ko jébbal askan wi nag ñu xam ni dëgg Sonko mii dañ ko doon bëgg a faat turbine naan konte boo koy wane bul fàtte it wane turug laboratoire yi nga xam ne ñoo def analyse yi nga xam ne dëggal na ni takk der dañ doon bëgg faat le témoin yi ne kaay naan Ousmane Sonko nga yuuxu te naan fii ci réew mi Sénégal gii fii laa dëkk te fii la ma ay takk der bëggoon faagaagalee naroon maa faat vox populi naan Ousmane Sonko ma nga naan analyse yi dikk na te dëggal na faatu faatug bakkan moo ca naroon am turbine yéene kaay naan kon ana analyse yi usu wannu analyse yi te bul wax ñu turug labo bi nga xam ne moo def yi le test vox populi jox du porte parole bu gouvernement gi moom Abdou Karim Fofana naan Ousmane Sonko day daal dinay salfaañeeti caxat caxatee respect bi nga xam ne war nañ ko am ci sunu takk der yi ndax nag ma ngi leen di tuumaal bi yoon naan dañ ko bëggoon faat tuuma goo xam ne àndut ak benn preuve turbine yéene kaay naan kon déet Ousmane kay dina teg dara suñu loxo Abdou Karim Fofana ci vox populi naan ko ma ñëw xam nga dictature yi nga xam ne ñoo gën a yées ci àddina fa nga xam ni pexe bu ne daf fay jug ngir ay adversaire politique foofee du ñu bàyyi ba nga xam ni téléphone yeeg télévision yaa ngi direct ñu jël seen adversaire adversaire bëgg koo faat yenuwul maanaa vox populi naan maan yàggul dara procureur général bu ndakaaru génn na wax xam leen ni jaare ko ci yarga si ba ci dossier médical bu Ousmane Sonko boo xam ne asma rek la wane ba ci kol bi nga xam ni nee ñu dafa feesoon dell ak vinaigre amul lenn loo xam ni wane woon na ni Ousmane Sonko dañ ko doon bëgg faat tribune yéene kaay ne waaye Ousmane Sonko xam leen ni analyse lool la wane muy jéem gin doon jéem ci bakkanam moom Ousmane Sonko ngir faagaagal ko Sud Quotidien naan man xam ngeen Idr ma ne ko déedéet mu ni ma ak jaan su ndaw la soo xam ni dafa bëri bopp benn bopp boo kutu dafa mel ni luy saxaat te terewul nag jaan gi day wéy di dund yéen kaay bi naan maan loolooy Ousmane Sonko ñi ngi ci waajtaayu présidentielle 2024 bi pexe bu ne ña ngi ko koy pexeel moom Ousmane Sonko mu taxaw rek yéen kaay bi naan man bi le présidentielle ci ngay gisee feem gune moom président Macky Sall dana demam tu dem ga yaa ngi tënku nag ci nii wii nii noo gi di xaar Sall ngaari ban dogal lay jël ci réew mi laataa loolu sud man ña ngay kàmbal lu ne Ousmane Sonko muy rëcc Idrissa Seck nekk ñannaaw goo xam ni Phoenix ko yéene yéenekaay bi di pee phénix nag mën nga koo lakk ba mu nekkub dóom wala mu maggat ba faatu fayal laaxu waaye day daal di judduwaat beesaat ni jomm taxaw baaba Khalifa Babacar Sall yéenekaay bi naan man mooy force tranquille Karim Meïssa Wade nag fi mu ne mooy dernier roue de secours bu kan xay na bu waa parti démocratique sénégalais tribune yéenekaay naan maan waxtu wow taskatu xibaar yaa ngi dund jaxaan na ma ci réew mi Babacar Touré bu kéwaloo fi mu ne ñi ngi ko teg loxo woolu Moustapha Diop forum du justiciable naan mandat de dépôt yi nga xam ne dañ koy séddale ci réew mi i yi dañoo teggi natt nañ ko dakkal mi ngi bëgg nag jéggi dayoo 24 heures yéen kaay naan maan réew mee jaxasoo daal loo ci manti déggit Sénégal lëj na ni wëñ ñi ngi tuñ tuñal nit ñi di leen jàpp ay positionnement politique tax wax ji ñaaw lool waxtu woo xam ne réew mi ñàkkum xëy gaa fi mel ni tulleeg màlle ñuy woote dialogue national bu kenn déggluwul coowal suuf tongal askan wi 24 heures yéen kaay naan maan réew mi comme loxo bu am fukki dam ak juróom réew moo xam ne nii fi ay manifestation ay communiqué ak conférence de presse la ñuy dundee te ku wax ñeneen ñi génne tontu ñenn ñi buñ tàllalee loxo mel ni Sall ak waa opposition bi ñu naan koon ñëwuñu fi mu ne nag ñu bëgg jàppee politique gu réewum Sénégal baras boo xam ni ko am ambition war a yegg ñu téye la ku nekk nga faral rek nga jàpp ne moo gën daal moo baax 24 heures ne fa ma mujjee mooy sampub laaj dëgg-dëgg lan moo dox fii ci réew réewum senegal su soo defub say daal di am fenn fun faree te far gi yépp nag moom moo di yaakaar say am ca wala ëllëg yéen kaay bi naan xam nga sunu xel yi nga xam ni politiciens yi dañ koy fowee dakk ci réew mi Sall daal ma ngay insister la gaay naan insister Sall ngay insister naan opposition bi ñëw leen ñu waxtaan le soleil yéen kaay naan rax ci dool yi di jëli dogal moom président jël na Abdoulaye Diouf Sarr nag daal di koy tabb ci boppu FONSIS l'enquête quotidien naan kon fekki conseil économique social ak environnemental bi nga xam ne à part jëmmam amalul njëriñ askan wi bés bi la jour naan assemblée nationale daal ma ngay wut wut lu njëriñ gannaaw ba nga xam ne noppalu nañ ña nga woote daje nag aljuma ji war a waxtaanee question d'actualité yenn ci commission d'enquête ak haute cour de justice Marius Sagna ne seen woote gii daal dama ko gëmul am nag ndëgg sërëx goo xam ne fi mu ne lalal nañu ko waaye guy naat ñu ngi leen di xaar l'évidence yéene kaay naan Mariétou Dieng gannaaw ba mu génnee groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ndax nag du delloo man mandat député bii Walf Quotidien naan lan war a wax kay mooy mbaala daloon mi Touré du ko dal l'observateur naan maan en tout cas Mamadou Diop Decroix moom ma ngay wax nee na fi mu ne réew mi jaxasoo gi mu jaxasoo waxtaan ci sunu biir def dialogue national dong moo ko mën a saafara Mamadou Diop Decroix naan kuy jaay guerrier janook ka nga amal problème xool ko ci bët wax ko la ko naqari moo gën ngeen jéem a wut saafara ndax nag fi mu ne réew mi dal la ñu bëgg fitna moom bëggunu ca dara dal rek les éco yéene kaay naan maan moo taxit président ki Sall ma ngay woote discrétion maanaam tëju gémmiñ ci bërëb yu ñuy liggéeyee mu jëm ci waay takk der yi mu jëm ci yoon mu jëm ci administration territoriale bi mu jëm ci impôt et domaine mu jëm ci ña nga xam ni nii ñoo yor suñuy xibaar président Macky Sall naan leen waay waay noppi leen nit dafay am bàmmeelu biir yéene kaay bi naan maan coowal daanaka ñeenti milliards fi mu ne nag yoon teg na leen nga dëgg-dëgg procureur ci boppam sàkku ñu daal di leen di topp waaye ba nii daal bal tàkkul sagar xeeñul tribune bi a kaay naan kon booba ci réew mi ñaari téeméer ñeent fukk ak juróom ñett ci doomu aadama lekk ñu ba suur naanu ñu ba màndi l'info yéen a kaay na ko rax ci dolli médecin yi génn di wax naan seen njuumte yenn yi nii wasaare nañ ko ba direct news naan kon nguur gi na gestu l'hôpital bu Saint-Louis bu Podor scanner sax amul ci yooyu la l'hôpital askan wa di fa dund jaxan na ma goo xam ni maar day taali bés bi le naan ca Bignona kaa bu njëkk bu rougeole daal dinañ ko fay gis tribune yéen kaay naan kon ca maire bu Sigicoor ñaar fukk ak juróomi agent yi nga xam ne dañ doon grève di sàkk ñu yokkal leen salaire Ousmane Sonko daal na leen di ronqi fa ñu nekkoon affecté feneen libération yéen kaay naan maan xale bu jigéen bi dafa ni woon docteur la di defi live ci TikTok di jaay ay garab ngir wannu lor di defi consultation médicale di bind rax ci dolli di jaay ba ko sûreté urbaine woowee la xam le ni mësta nekk docteur amul diplôme docteur amul diplôme jaay ci pharmacie te tàmbali ab tàggatu goo xam ni mujjuma ma koo yeggali yéen kaay bi naan maan boo leen fàttalikoo fan yële maa ngi leen doon wax awa ba soxna soo xam ni dafa demoon réunion ñu daal di koy jël daal di taal daal di koy faat ba pare lakk ko lakk gu metti soxna soo see day am na koo xam ne jàpp nañ ko ci faatoom gi te enquêteurs yi njortu nañ ne moo ko def waa jàngi am ñeen fukki at ak benn te moom ci boppam moo njëkk wane fan la awa nekkoon gannaaw ba ñu dajalee la ñu am ci moom enquêteurs yi jàpp nañ ni daal am nañ loo xam ne mënees na ko ci nit ñi ndax seen njort mooy moo faat awa mii ak lu mën a am